Bamba kontaan naa nag maa ngi leen di dégg yéen. allo Sibsi mais allo Sibsi si mais allo Sibsi kontaan nañ yow. maa ngi si jàmm mais senegale yi dama leen ne allo Sibsi am na liggéey njàpp am na liggéey ñu weddi ma man leen yéen ñëpp a ngi si jàmm yéen a tey def leen leen neex parce que bi ngeen fii nekk. amu leen xaalis maag yow ñoo doon nekk ba 4 heures du matin ngay wër na kii est-ce que du dëgg Aliou Cissé laay waxal waaw bambaa ngi nii. xam nga xam nga journaliste bi. Aliou Cissé Aliou ñu ngi lay nuyu. laaj ko seen question. mais Aliou maa ngi lay siyaar bu baax a baax Aliou. appel vidéo maa ngi delloo siyaar lu bari. ndeysaan ah Mbaye appel bi da nga ko waroon def audio nag ndax ñu mën a dégg Aliou bu baax. kii waaw. ah def ko ojo ñax ñu dégg. allo woo ko woo appel vidéo la ko def moom xam nga mbay mooy mbay preuve am wool allo. woo ko mhm. Mhm. Euh, <laughs> ba tey xam naa ne ñuy wote ci ligne bi dañ ma may Alou Cissé moo nekkoon. Euh, mm-hmm. tëggkat tëggkatu Sidi Diop. mais tëggkat bu aay nag. Mm-hmm. ku am talent moom itam macha allah allo. Mm-hmm. grand waaw. allo maa ngi lay siyaar bu baax yaa ngi ci jàmm. xanaa delloo ziar bu baax waay. Ah, jërëjëfati frère en tout cas am nañu mbégte ci euh, nangu gi nga nangoo jël appel bi déjà polémique bi bari na cool yu bari na ba baax tey yow moom ndeysaan kenn du la dégg sax nga wax parce que tu es euh, de nature calme mais. Euh, alu talent bi nga am. talent bi nga am ñëpp yaakaaroon nañ ne alu moom musique sénégalaise vraiment day toog fii téeko ko ci ci loxoom auprès de Sidy Diop alu lan moom motivé toog Europe bi. waaw mais toog Europe tey ñu bëri lañ naan Alou daa toog Europe man tooguma Europe lii mission la rek. mission la rek. waaw mission la rek parce que man moom. Mhm. ku a xam ne Alou Alou Cissé dafa yor carrière solo mhm. am. xam moom sama frère la yàllaa ñu boole depuis depuis mariage bu tey quoi. ndeysaan yàgg na. waaw yàgg na quoi tey nag ñuy ñuy wax nag ñooy ñooy ñooy wax rek mais Siri Diop c'est mon frère. Mhm. waaw. c'est mon frère te c'est la c'est le Sénégal quoi. waaw waaw dëgg la dëgg la alo mais Alou. waaw euh, euh, ça veut kon da ñuy confirmer ne alo toogul Europe mais dina ñibbi si Sénégal. incha allah incha allah. mais lan moo waral Alou nga àndandoo gars yi euh, tournée mais juste après yow nga toog parce que il paraît que nee nañu yow yaa daggal sa bopp billet wala dañ la jiitu je sais pas. waa ah, tey jii tey tey jii grand euh, xam nga. dafa hmm. doon li tey jii mbay mbay sama waay la. waaw dëgg la lu leer. Hmm. Oh, sama waay la moo tax mu woo ma ma jël mais appel yi bari na trop macha allah. mais nangu woo wax boobu ak tey. mais mais mais mais mais nag incha allah di euh, c'est que man dama am kilifa. waaw dama am kilifa xam nga rek Siri sama la àdduna du neex ba ma toog yàq si deru Siri Diop. waaw wala may wax si moom lu ñaaw no c'est mon frère dama koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg si carrière yàlla def ko. amiin waay parce que parce que parce que man moom du ma yàqkati der. dëgg nag du ma workat. Mhm. du ma ma workat yéen maa ngi gis si internet bi nag nit ñi di bind Alou Cissé daa daw daa woor nii nii gars yi nañ tey si problème mu jàmbur sénégalais yi. Mhm. nañ parce que gis nga bu dara bu dara amee. da dara bu amee nañ tey parce que ñu ñëpp xamante nañ ñun ñëpp benn lañ. dëgg la. waaw te yàlla moo dogal ne Alou si heure bii Europe la koy fekk tey jii ak xam nga euh, yàlla moo dogal lii quoi mais yenn sax da ngay seetaan ay vidéo yoo xam ne ak ñoo xam ne ñoo ngiy wax maa ngi seen numéro te ñoo xam ne ñoo ngi wax di yàq am na si ñoo xam ne damay seetaan seen vidéo message leen dañuy tiit sax. parce que parce que àdduna amul solo Sidi Diop c'est mon frère àdduna du neex ba ma génn di yàq Sidi Diop. waaw ndax dund nañ dund nañ am am am na lu mu def si man am na ñoo xam ne buñ ma xamee yàlla ak Sidi Diop la. la waaw am na am na ñoo xam ne nag buñ ma xamee yàlla ak sama carrière solo la. Mhm. waaw noonu la demee mais lii lu yàlla dogal la rek. waaw na na na nice rek. guitariste bi te te ñun toog buñ toog toog buñ toog fii yàqul si musique Sidy Diop dara. Sidy tey lay gën a musique lu neex tey lay gën a xew. jàpp mm-hmm. noonu la demee Sidy jàmm rek la am allah. d' accord donc da gis ne sa absence daal manqué wu ko manqué manqué wul dara quoi Sidy Diop franchement. no non non non non non Sidy dafa Sidy dafa mën lu muy def mën na wéy pire macha allah mën na wéy torop kenn mënu ko yàqal. ku yaakaar mën nga ko yaakaar rek yaa ngi nax sa bopp parce que yàlla yàlla yàlla mooy dogal mhm. yàlla yàlla mooy dogal lu yàlla def nag kenn mun na si dara si di jàmm lay am te xam nga macha allah musique Sénégal mu ngi koy yóbbu fu ne si àdduna. mais wax nga ko nee nga sa ah. frère la euh, euh, Alou nee nga nee nga Sidi sa frère la est-ce que depuis boobu si woo nga ko téléphone ngeen déggante malgré tool yi bari na. pour pour pour te dire. Mhm. si si di jóob xam nga maa ngi numéro. waaw. xam nga nit bu la meree dana la bolake wala dootoo leen dégg waaw. waaw maa ngi maa ngi gis SCTM moom tamit moo ngi sama numéro ñu ñoo ngi si jàmm gars yi ñooy nekk di wax ne gars yi nañ bàyyi wax te xamuñ li ñuy wax képp ku si wax nag après yaay ruus. yaa ngi gis SCTM mi ngi gis SCTM mais quand kenn jëlul téléphone am woo sa moroom quoi. non ngi ci jàmm. ñoo ngi ñoo ngi si jàmm Baye Fall barki sëñ bi laa war a gars yi man yenn saa maa ngi maa ngi Europe ni nekkuma Sénégal mais damay seetaan yenn vidéo mais damay ree parce que ñu ngi si jàmm parce que gis na nit. Mhm. maa ngi gis vidéo yu bëri Alou Ships daa daw tey ji yow dama lay laaj grand. tur naka la tur bi. Bamba. Bamba dama lay laaj nit booy daw. boo boo àndee artiste di daw. waaw newul fa ngay bàyyi say bagage fa ngay bàyyi say dàll say papier say lépp. dëgg la. waaw man samay samay papier moo ngi nii si man samay samay valise samay yére lépp moo ngi man gars yi nañ bàyyi yàq der yeeg lépp. àdduna nañ la. non non déggoo ma de en tout cas daal. laqatoo da jël say responsabilité yow. Mhm, allo lu lu ma lay lu ma lay të lu ma lay tënkal. Mhm. nañ nañ bàyyi yàq parce que Sidi doomu Sénégal la ñun tamit doomu Sénégal lañ. Mhm. waaw ñun ay ay jaamu yàlla ay ay jaam lañ si. dañ bàyyi yàq ñu yàq. Hmm. seetaan naa benn intri benn émission tamit xam nga ku si mel ni damay tudd tur aji maas. Ah, hmm. waaw aji maas waaw. ay seetaan waaw maa ngi seetaan ki man maa ngi numéro ba ma seetaanee affaire yi sax dama tiit. mu naan booy yàlla nañ dajee carabinière yi xam nga ñu jàpp leen rëfal leen andi leen Sénégal. loolu naaye sul quoi. parce que ñun ay doom doomu Sénégal lañ. ndeysaan. Hmm, xam nga nan aji maas moom invité na ma fi émission invité na ma fi émission rajo Kumba Gawlo Seck ba ma demee émission ba toj ko joxuma paas joxuma dara ba ma génnee taxi laa jël ñibbi boobu awuma sax oto mm-hmm. xam nga affaire yi nan naagis quoi mais di di di yàq di yàq suñu der mel ni ñun xam nga si Sidi Diop suñu frère la si di Diop jàmm rek lay am ñun tamit dañu ñaan yàlla am jàmm mm-hmm. xam nga li ngeen li ngeen commencé woo nekk xale ba ngeen nekk mag suudewu boobu ngeen dem bàyyi leen loolu lañ la kaw. mbay mooy wax de mbay. Mhm. alo allo. nee na sénégalais dañ ne. Mhm. Mhm. man fi mu nekk nii dañoo xam ne dama sama xarit nga may tax moo taxit lu ne dégg naa ko si si allo allo allo may moo tax man waxuma sax ba tey tey laa si doog a wax suba see wax ma ne leen bala ma see wax damay dégg allo. parce que bëgguma def lu ñaaw euh, euh, sénégalais yi dañ ma naan lan moo tax ñoom ñu suudeewu ak ñu suudeewu ak ak Sidi Diop bi ñu nekk xale ba tey njàpp bi muy nekk xale ah euh, kii Baye Niass ah. Mara kii xawma keneen kii ñeneen ñi daw ñëpp ay xale lañ ñu nekk ak ndandoog Sidi màgg ak màgg ak Sidi dem ba jékki-jékki ñu dem Europe ku nekk désespéré loolu la sénégalais yi di méttitlu mais mais xam nga tey jii Sénégalais dañoo comprendre. Mhm. man man man ñun ñu ñu ñu gars yi dem yëpp ku si nekk bokkul jour bu nga dem ñii dañoo fokkoon ñu ñëpp a àndandoo dem non non ñu demeewul noonu. Mhm. mais da ngeen ko waxtaanee wala. non waxtaanee wuñ ko waxtaanee wuñ ko nag ku si nekk nag dem bi nga dem nag sa responsabilité nga jël. Mhm. ak xool xam nga yaay nit ku si nekk yaay xoolu la arrangé. waaw. ah noonu noonu la demee quoi. Ah, parce que guitariste bi keroog dafa génn xaw ma ne ne si 15 000 la fay xam nga ki cinq 15 000 la ñuy fay looloo ko loolu moo leen naqari xaw ma. te alu ah, te alu neen amoon na oto amul dara quoi. man yooyu waxtaan waxtaanoo guitariste bi alu si fi ngay wax. <laughs> <laughs> man moom. Ah. man moom. man moom man moom wax dëgg fa yàlla. parce que am na tamit retour yi ma jot keroog ñu ne Alou Shift Euh, Sidi si dafa am lu ko métti si Sidi parce que nee nañ euh, yow yaa fa njëkk waa ji wu taasu yaa ji waa ji wu taasu waaw. ma mhm. loolu moo la métti. nañ bàyyi mu sedd garaaw si ñoo far yow. Ah, mais mais mais la. ma xamoon naa ba tàmbalee laaj rek. nañ bàyyi mu sedd am leen jàmm laaj ndànk ah mais hmm. ah, bi ngay. bi ngay dem dégg naa da nga see waxtaan ak sa yaay. ne ko yaay damay daw. non non non non man daw yow. Eh, daw amu fi mbay bàyyi leen waxi daw loolu dafa ñaaw. Mhm. Ah, loolu dafa ñaaw ay taw turu daw dafa ñaaw. kon kon da nga am ay ah, ah, kon kon léegi mën nañoo jékki-jékki rek gisaat la yéen ñëpp ngeen ñëwaat taxawaat si seen Sidy Diop. Mbaye. Mm. <laughs> après dinaa <laughs> ma def loolu sa waay la <laughs> yow ko yaa ko fi ah ba nga koy laaj nii am nga liggéey am nga liggéey. Euh, mbay la liggéey la. ah liggéey foofu quoi liggéey foofu. liggéey fii da nga da am liggéey fii du Sénégal fii boo fi am liggéey ay papier leer lañ lay jëlee. mais est-ce que est-ce que am ngeen am am nga njàpp dégg naa am na liggéey moom instant bii. waaw ah, gars yi dañuy sóob rek <laughs> am na liggéey. moo jëm ñu ne am na liggéey. njàpp war na war naa kaa woo démb sax. njàpp amul liggéey. njàpp lan lay liggéey fii. ah nee nañ def na restaurant ba démb ñu pa ay vidéo yeeg yooyu. ah. ah kon yéen ah. waaw ah, a gisee nii nii nii. Eh, kii nga eh, eh, yéen a ngi gisee nii nii. non gisante wuñ de ñun moom wax dëgg fa yàlla bay. Hmm. ñun ñun ñun ñun ñii kenn gisante wul sa morom fii balaa ngay gis ni da nga jël dem dëkk dëkk laa la wax. Hmm. wax dëgg fa yàlla. ah taw dëkk yi dëkk. mais njàpp njàpp di nga manqué manqué di nag parce que Sidi fi mu nekk nii. premier ah kii Alou Ships fi nekk nii. mbay waaw mbay mbay mbay ba suba mbay ba suba. mais nii nii nii Alou